asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne ci la ñu nekk di jiital ci nuyoo bi sax Mamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ñu am mbégte ngir yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yi dolli ay cant lay doon jëmee ko ci sunu mbokki taalibe yi nga xam ne bi nga xamee ne lance nañ jaayante ci añu jumaa ji muy waa mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Angleterre maanaam liggéey bi tam tàmbalee Angleterre laay wax sax ci njiitul sëriñ Fallou jóob ak sëriñ Abdoul Akim mbay euh, sëñ Njaga Njaay sëñ Baara Njaay ba ci waa Angleterre gépp rek sëñ Ablaye Dieng Faw say nekk sëñ euh, Dame Gueye mi nga xam ne moo jiite fédération bi ak mboolem jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk Touba Angleterre gépp rek waaye nag àddina bi wuyu si leen si ndax jaayante añu jumaa ji am na ci ñoo xam ne Touba gii lañu dëkk am ñoo xam ne ñu ngi Espagne Amérique Italie fu nekk ci àddina bi ba ci Afrique am na ci ñoo xam ne eh, joxe nañ jël nañ benn ajjuma ngir jaayante ci añ yi muy jëf joo xam ne kawe na suñ jort ba nii may wax ak yow rek suñ Fallou Diop nee na ba fii ñu toll rek am na ci ñoo xam ne ñu ngi jaayante noonu tamit nag ni lay wéyee buñ ne jaayante añu jumaa ji xam nga koor bu ñëwee ndogu mooy am kon ñi nga xam ne dañoo jaayante woon te seeni seen calendrier tombé ak weeru koor gi tamit euh, bis seen bisu ajjuma boobu day wéy ci ndogu yi day wéy dem ci ndogu yi kon loolu ñu xamee ko noonu kon képp koo xam ne jaayante woon nga ah, jël añu ajjuma boo xoolee sa calendrier bis bi nga tombeel ci ñeenti ajjuma yi ci biir koor gi la da ngay xam ne yow añ booba nga jaayante woon jaayante ko dafa woy doon jaayanteem ndogu loolu nag taw feex la day mel ne kon sànni wenn xeer jëm ci ñaari picc la kon su ko defee loolu tamit yàqul dara ci liggéey bi nga xam ne mu Khidma Angleterre ñi ngi koy def ci koor gi te euh, Sëñ falu Diop di ko coordonné mu doon loo xam ne ni ko waxee woon fa demee soññoon nañ daayira yëpp ngir ñu ñu gën a taxawaat ci liggéey bi euh, ñaga ca lii nag euh, mbir la woon moo xam ne mu ne su koo ñàkk a leeral soññ leen ci sant leen ci te ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi moom moom lañ koy seeral moom sunu borom waaye sëriñ Touba mi nga xam ne mooy moom mooy mooy borom liggéey bi mu nangu ko te def ko fa yiw yu baax ya ya gën a baax ya gën a sakkan darajay wax di hawaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maramu ñu ngi sant bu baax di gërëm ci turu Serigne Afi ak ci turu kilifay daayira Muxaddamatul Xidma bépp ci ne jëf yëpp ñu ngi koy gis ñaan sunu borom mu nangu ko te nangul ñu suñuy koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu